soo ñu am yaakaar ci fédération bi parce que c'est pas parce que ñoo ngi door jëflante ak association de consommateurs waaye yéen am nañ seen yaakaar yaakaar ji nag dañoo bëgg ñun suñ kàddu fi mu mënta ak yéen ngeen àggale ko fa mooy ci li ma fi waxoon bu njëkk Touba c'est une ville spéciale qui est devenue une mais un métropole mais on nous considère comme un petit village loolu moo war a jeex loolu lañu bëgg mujj jeex ci yéen lañ ko bëgg a jaarale li ci njëkk dañoo waxoon ne mooy problème de santé dëkk bi c'est la santé qui est malade c'est pas les les le les les habitants qui sont malades c'est la santé qui est malade dañoo bëgg jaaral ci yéen yéen sunu santé boobu feebar ñu jaar ci yéen pour faj ko jaar ci yéen ba sunu jigéen ñi nga xam ne ñi ngi dem ci hôpitaux yi yàlla dogal ñuy matu wala ñu am ay jafe-jafe ñu fexe ba li ñuy wax pyramide sanitaire ñu respecté ko ci dëkk bi parce que dëkk boo xam ne 2 millions de personnes lañ. waroon na am 200 par exemple poste de santé am 30 poste de santé ñu am benn gabu 170 poste de santé kenn ku ne xam ne ni mënoo respecter pyramide sanitaire bi pyramide sanitaire sibru ab poste de santé moo koy faj comme pyramide sanitaire bi kenn respecté wu ko ku sibru ci hôpital ngay dem hôpital soo fa demee un médecin nga fay fekk un médecin un traitement médecin lay defal ça c'est c'est très cher hôpitaux yi ñi ciy dem sonn nañ pourquoi parce que li tax ñu sonn mooy dëkk boo xam ne 200 postes de santé moo fa waroon nekk 30 postes de santé nekk fa personnel médical bi pression bi ñu ngi xam ne moom leen dëkk bi teg attantuñ ko donc liggéey bi ñu waroon a def dootuñu ko def kooku jafe-jafe la loolu aussi il faut ñu xalaat ci surtout le problème de Sénélec am nañ problème parce que dëkk boo xam ne nii 200 2 millions de personnes lañ soo xoolee le sud. gépp li fi nekk di nekk cent cinquante euh, li nekk Touba cent cinquante mille abonnés soo xoolee sud bi nga xam ne ni mooy sud bi amuñu cent cinquante mille abonnés ci Senelec ba ba tey jii fii ñuy waxee tey am na ci décision ne Thiès la ñuy jógee pour ñëw di faj soxlay Touba loolu dafa loolu loolu yaakaar naa loolu loolu jaaduwul te ñëpp xam nañ ne jaaduwul jox la facture courant nga am délai 35 jours ci jour bi nga jotee facture bi ñu jox la délai le 5 juin ñëw le 17 juin ñu coupé am na fi te je suis témoin parce que man aussi. responsable laa boo xam ne maa ngi ci di defendre les les les les les consommateurs au niveau de la Sénélec yooyu la ñu wax. école bi nga xam ne nii suñu doom yi ñu ngi fii di dem di dem Mbàkke ñu xool budget bi nga xam ne c'est un budget de 40 pour cent te un un budget ab tontine la noonu waa Touba dañuy teg te duñ teggi waaye li nga xam ne moom la ñuy teg te waroon ko teg ci sant di ko teg ci euh, par exemple éducation mais fu mu jaar loolu lu mat a waxtaane la. ak yu bare yi bari yoo xam ne kenn mënu koo lim problème de sécurité Touba soo jëlee Géejawaay ga nga dëkk ak Pikine nga boole ko neuf postes de police moo fa nekk wala set ak deux commissariats te population yi ñoo yem donc on a problème de sécurité loolu problème usagé la soo gisee ñun ñu taxaw ñun waa Touba ñëw am ci yéen yaakaar mooy danoo bëgg ñun suñ kàddu di ak Mbàkke danoo bëgg suñ kàddu fi mu mënta àggale ngeen àggale ko fa loolu moo ci dugal loolu moon nun ci dugal su yaakaar jooju yàlla bu mu tas. waaye dañuy continuer nun nag di xeex sunu combat parce que combat la boo xam ne nii ala kulli haal il faut ñu combattre parce que sëriñ bi moo woote dongo yi ñëw ci dëkk bi nekk ay usagers il faut ñu góorgóorlu nag man ak sama combat mooy liggéeyal njabootu sëñ Tuubaa gi ak liggéeyal taalibe yi man combat boobu laa bëgg a